mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne rek dal leen ak jàmm fii ci seen chaîne youtube tey nag di àjjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum août atum 2022 dañuy ñëw ak yéen ci li gën a ci xibaar yi xibaar yi dinañu ko door tey ji ak njiitu pastef bi di Ousmane sonk doon it maire bu Ziguinchor ginnaaw ab conférence bu mu amaloon ci alxames bi mi ngi fësal ni bëgg na nekk ci ñu jëm ci jongante ngir doon njiitub réewub Sénégal ci atum 2024 bi ñu dëgmal mi ngi xam le ni nag keneen ku nekk ci biir parti boobu di Pastef te bëgg bokk ci bi lépp jongante mën na ko def te déposer li di candidature am tiktokeur bu siiw boobee di Khaby ma nekk ci ay waajuram sénégalais jot na taxaw tey ca mairie bu Italie waat ni bis ni ki doon na tigi italien ba fi mu ne nii yor na li di nationalité italien ginnaaw ba ko réew boobee nag bañaloon na ko ci lu tolloog ay at lii di xam ni ni moo di ab nationalité di fàttali rek nag Xabila moom ëpp ñu koy topp foofu ci li nga xam ni moo di réseau social boobu di TikTok ginnaaw ba lii di ko Interpol boole ci lii di nataal yu xonk yooyee lu tollool at nag doomu Nigéria boobu di toppee Opanguna division investigation criminelle bu Dakar teg na ko loxo gannaaw ba mu wàccee ci aéroport bu Diass ba sax defeere nañu ko laata ñu koy yóbbu foofee ci Amérique ngir àtte ko foofee boobee lii di FBI nag mi ngi xam ne ni lu ñuy toppee ki nga xam ne moo di toppee Apha Ngoune mooy ab njuuj njaaj mu amaloon jaarale ko ci xarale yu yees yi toll ci lu ëpp ay junni nga million nga ci dollar njiitu réew mi woon ci Sénégal ñu gën ko xam ci maître Abdoulaye Wade fësal na ni day daal di wëyal lii di coalition yeewu wàllu Sénégal gannaaw finne yu mu gis ci élection euh, yi ñu génn moom nag nee na nekkul te àndul ci dara luy yàq wala di dindi di booloo bi opposition bi booloo tiis ak nakar la journal bi fësal tey gannaaw ab sénégalais bu nekkoon foofee ci Italie nekkoon fa lu ñuy woowee lii di SDF muy nit ku amul fu mu nekk bay dundi sax ci mbedd mi la ab train jaar ci kawam ba mu jaaree fa ñàkk fa ab bakkanam ginnaaw ay tolof tolof yi mu dajeloon ba tax na sax ñu dindi ko lii di mandargaam bu gendarmerie ba sax ñu jot ko fee amal lii di ab cagnotte moom nag di di capitaine Touré moo fësal dugg sépp ci arène politique bu Sénégal ginnaaw ba ñu tëji hôpital Le Dantec ba jël bërëb yoo fajukaay yooyee tas ko ci biir Sénégal kii di njiit ci lépp lu jëm ci wàll bu faj di Marie nga Ngom fësal na ni tey ci journal bi dina amal ab wër ci bërëb bu nekk ngir saytu li ñu fa teg ak maanaam nan lañ koy doxalee foofee ci hôpital yu ñu tas li nga xam ne mooy bërëb yu fajukaay bu nekkoon ci biir hôpital Le Dantec xibaar yi nag dinañu ko ndar képp Beck ak féministe bi di Gabriella Kane gannaaw ab ziar bu mu amaloon foofee ca diwaanu Touba ba mu jër ab coow fii ci Sénégal rawatina ci presse bi surtout nag ci réseaux sociaux yi nag ba tax na moom mi di Gabriella Kane di féministe bu mag bi génn na wax li ni moom nag Gabriella nee na segam Serigne Mountakha moo recevoir ku njaaloo ba Sénégal ñëpp teg ci ay gëtam lan moo tax mënuñu ko recevoir moom mi nga xam ne ab simple citoyen la te yor lu baax rek rek jëmale ko foofee nag ca diwaanu Touba internetu seen acti TV li leen indi loolu tey ci li gën a fës ci xibaar yi di leen wax ne rek woy leen di abonné te bu leen fàtte bés li nga xam ni moo di cloche boobu ci suuf di am suñu ay notification à la prochaine ci yeneen xibaar fii ci seen chaîne YouTube seen acti TV la chaîne au cœur de l'information